bi ko yàllay dikk mënul woon a gin ci keneen ku ko gëna màgg ba tax mu giñ ci boppam ne ko salaaw dinaa la barkeel yokk sa askan noonu Ibrahima di xaar tey muñ ba jot li ko yàlla digoon nit kuy giñ nag daf koy wekk ci ku ko sut ngiñ gu mel noonu moo wóoral mbir mi tey di jeexal lépp lu ñuy werante ñi war a jot li mu dige